tàmbali na nag nun comme ni ngeen xamee noo fi jëkk noo fi mujj noo ngi tàmbali barki démb tey la nu feeñ waaye noo fi ba màggal gi euh, ba le 10 octobre euh, loolu moo wane ni rek ñëw na nañu indi suñu jumtuwaay ci wàllu jumtuwaay oto yi indi nañu ñaari euh, camion yu mag yoo xam ni moom mooy transporté tout yi mooy yóbbu na ni indi nañu fukki oto ak juróom-ñett yoo xam ne ay 4x4 pick-up lañu yu bokkul yeneen oto yi nga xam si ay particulier lañu te agent yi moom ko te bu bi laajee ñu dugal ko ci indi nañu aussi appareil yi ñuy pompé na sëkk indi na nañu yu mag yi nga xam ne bu guddee moom la ñuy wëree dëkk bi moo ñoo nekk na la ca kaw oto ya euh, indi nañu nag ci biir dispositif bi ay pàcc pàcc ay kuréel yoo xam ne kuréel bu ne dañ lay dénk liñ ñu la war a dénk am na kuréel goo xam ne day saytu ndox mi euh, cetug ndox mi ak càll ndox mi ñuy naan am na kuréel goo xam ne dañ koy dénk wàllu mu topp marché bi xool li ñuy jaay lu xor ci yu bon yi ndax xam ngeen ni am na ñuy màggal si am na ñuy raas si dem ñuy gàmmoog ñuy raas dem bokkuñu euh, ñi nga xam ne dañuy profité ci màggal gi di indi ay marchandises yu bon bëgg ko wanteer dama naan rek population yi fu ngeen mus la xam boutique wala kër gu guñ luyee bàyyi fa ay marchandises ngeen gis ay pousse-pousse di fa jaar di génne marchandises di yóbbu wala ay sareet na ngeen leen dénoncé na ngeen ko wax comité bi comité bi wax nu ko ndax ñooñee duñu marchandise yu baax taw day am ci dëkk bi ñu luubal ñi dañuy taxaw ci benn angle gaari seen camion tëgg seen ndënd ni dañuy dañuy promotion promotion boobu nañ ko xoolaat surtout lu wàll lu jëm ci wàllu lekk ak wàllu lu jëm ci waañ bi loolu am na am na am na équipe bu ca jëm am nañ équipe boo xam ni mooy topp camion yi nga xam ne ñooy vidange ñooy def vidange yi ndax aussi dañ leen di topp ba nga xam ni li nga xam ne moo génne ci fos yi du tasaaroo biir Touba du tasaaroo ci fu jege Touba sàkkal nañ leen barab yi ñu fay yóbbu ci biir di sauté bi am na ñeenti moto yoo xam ni ay agent lañ koy jox ndax moto gën a neex a doxe moo gën a neex a toppee camion bu ko defee ñoom ñoo leen di topp ku ci xam ne si boo duy ba mu fees muy wala muy rogalaat ñu taxaw loola nga defar ko euh, camion yi nga xam ne ñoo ñëw bi ba commission yi daañ ci taxaw danañ ci def ni ci war a def mais ñi nga xam si ñoom laay woo pour ci loolu ñoom mooy privé yi nga xam dañoo ñëw di liggéey si wut xaalis te yor bi yi vidange nañu fexe ba seen camions yi bu mu senn bu mu seet nañ ko defar ba mu baax loolu lu am solo la ndax génne ko ca foos ba mu tasaaroo ci dëkk bi ba su amul amul njariñ ren dañ cee boole waa nag contexte Covid ndax léegi looy liggéey lu ne actuellement nii moom mënoo cee ñàkk boole contexte Covid kon loolu ak ak euh, euh, di di di ànd ak daayira yi ak ñi nga xam dañoo yor ay waañ yu mag di fa manipuler ay ay ay xeet ñam yu am solo mu am ay règles d'hygiène yu am solo yoo xam ne mi ngi tàmbale ci laabal di raxas seen loxo di nemmiku ñam yi ni jënd ak di di di di fexe daal ba barab yi ni euh, defaree ñam yooyu mu bañ a am ay feebar yoo xam ne mën na cee jaar di dugg ci euh, nit ñi. kon nga xam ne service d'hygiène liggéeyam yaatu googu moo tey dañ fiy desaat sax bu fekkee màggal gi jàll na ngir nga xam na ne fu nit ñu bari dajee. Euh, mbalit yi day bëri déchets yi xeer yi day bëri ca boobu tam am na ay opération yoo xam ne fii kilifa yi dañ koy def woote waat ngir ñu balewaat dëkk bi buub ko comme ni ñu koy defee fi ne pour mën a désinfecter barab yooyu ba kenn du ci jëlee benn ngaañ kon mu mel ne liggéey bu yaatu woobu ak yàggaay bi muy kii moo tax ñuy teel a ñëw nii indi nag dispositif bi nga xam ne ren day un dispositif particulier ndax président de la république véritablement moo moo moo bëgg service d'hygiène dellu ci doole ji nga xam ne amoon na ko ba tax na euh, kenn yéen ñëpp gis ngeen dispositif ren bi yaakaar naa ne wax dëgg yàlla lu daan def tey mën nañ ko def ñaar wala ñu mën ko def ñetti yoon